dañuy waxtaanee sujet du jour bi euh, li nga xamante ni nii nag ajaratu fan yii yëpp ñu ngi koy faral di gis ci internet bi. Mhm. mooy allumette yooyu ñuy jënd di ko di ko di ko kos di ci def si seeni ay vœux da ngay teg sa taas. Mhm. Euh, dafa mel ni élément nañ dem xooli ko comme ça ñi seetaan gën a comprendre après ñu doog a ñëw. yëpp ngeen war a taalandoo donc vous faites le vœu et tout ça qu'on vous dira sur WhatsApp donc vous allumez en même temps comme ça bien allumé. vous allumez ça comme ça et vous mettez dans l'eau. Là, il y a un, verre d'eau et vous mettez ça à l'intérieur. Ça permet à utiliser euh, un soir de nuit noire euh, maanaam bu maan si amul euh, ay étoile bu clairul maanaam bu lëndëmee lëndëm il faut pas que ngeen jaawale lumière du de, de la ville ak lumière u asamaan bi aussi bu lëndëmee donc il faut utiliser sept brins d'allumettes en même temps sept brins yi ngay jël après li ci des da ngeen inbox ñu wax leen mode d'utilisation bi mais. du jikko jamono la ñaaree xeetu jikko na man rek monsieur Deme kenn bokkul awa ba fàtte ko fàtte ko bu la benn gune xool <laughs> man dafa xew Sénégal tout euh, niñ ko tàmmoo di defee nit ñi léegi ku ci def sa ay ñaan rek dangay daal di wax sa soxla boo kosee ba noppi après nga daal di dugal si biir taas bi daal di def say vœux mu tombé waale en même temps euh, ñu gis nit ñi commencé nañ di ko challenge mu nekk mbir yoo xamante ni daal man vraiment euh, jaaxal na ma Omar naka nga gisee vœux yi nga xam ne léegi si allumette ci lañ koy def il paraît que am na benn dàm bu koy jaay benn allumette à 7500. ah mais xam internet. Hmm. moo egg ci niveau bi xam ne lii tey ji mën naa ko dugal sur les folies du web maanaam non ñoom jàppewul man maa ko jàppe damay commentaire damay commentaire waxuma ni loolu moo am mais sama commentaire la beneen bi ci topp xam nga les folies bu nee les folies rek am na yeneen folies yi doon am bii nag dafa ñëw di ci yokk hmm. beneen bi aussi mën naa ko dugal ci bu dee ngëm-ngëm la hmm. képp ku ko gëm jàpp ni la ñuy def noonu la yaa ngi dugg ci shirk. Hmm. mooy xaram. diine bugg ko. mooy xërëm bu dee loo gëm bu dee nekk kii foo di kaf wala muy comédie peut-être kooku mën nga ko dugal feneen kooku foofu rek la ko yemale peut-être man kooku duma ko àttee. mais bu dee ngëm-ngëm la rek boo xam ne danga ci dogu ni lii boo ko defee lii moo la ciy fekk pour man shirk la. Mm. ay xërëm la te képp koo xam ne gëm nga yàlla tey jullit. doo ko lii waroo ci dugg. man la d'accord Didi yow gis nañ la nga def vidéo yow tamit ba taal say brin pour ah. hmm? ah ay ah, ca gis nañu ko de. anke bu ngi jaawale man soowu Pape Diouf bi man man maa maa ngi nuyu de passage sa jaaro baas. Euh, chéri <laughs> chéri Bas Thioune jaara <laughs> man soowu Pape Diouf bi laa challenge mooy bi mu ak Bas Thioune naa ko almetang fi birikeeg fi nañ ko boyal. Hmm. tàngal ji mu tàng man loolu laa challenge bokkut ak almet man almet bi ma challenge. daal nga daal eh bokkul almet yi dañoo almet bi 750 man bu 25 francs bi laa def. Hmm. donc xam nga ni bokkul bii 7500 lay def 7500 bokkul ak bu 25 bi. d' accord boobu bi ñun moom lañ téye di ko di ko challenge pour ah, yi dañ ko jël au sérieux. d' accord di ko jaayee 7500. saa di di tojandoo. di non am na am na am na lu ma ci dégg nag démb. Hmm. xaw ma ndax ñeme naa ko xam nga maa xaw am dama xaw am fit. dégg na affaire de sacrifice la ci biir dafa am lu ci rax. Ah. xam nga nit di nga bëgg dem def benn sacrifice ñu laaj la mbooloo ñu laaj la mbooloo mais doo am noo ko doo xam noo ko parce que bu dekkee sa famille rek hmm. mbooloo bi du mot léegi da ngay préfère dem ci réseaux sociaux yi def fa benn affaire boo xam ñëpp dañ koy defandoo parce que mbooloo boobu la ñuy soxla man loolu xam na ma ci tiital trop tamit ok nga da doon ah da jàpp ne rek xam nga dafa am ñoo xamante ni bii Eh, dañoo tepparñi ko ba lu jóg ñu dugg ci eh, kii moom wax dëgg fa yàlla mi ngi def business am moom moom mi ngi jaayee almet 7000. mille <laughs> di ko jëndee juróomi dërëm di ko jaayee 7500. defar ci ay kiyoom ak yooyu naan leen almet yaa ngi nii gaa yaa ngi def ay commande ah kii day liggéey. <laughs> te ubbi na ah, mbir mi moom di leer ubbi na compte kii groupe whatsapp am. waaw ubbi na kii boo xam ñuy jaar. te di nga gis ñeneen ñu ko copier sax jël même façon ki demaat parce que lii yomb naa lim ci def yi tabaat ci affaire yeeg yooyu di keneen ci yeneen <laughs> almédia yi bu yeba ngeen xam ni loolu nag jigéen ñi xamal li moo lay wan ne lamb gi nga xam ni moom la jigéen ko jëkkër bi laay ñaa ngay jël naan kii te nag eh, waay waay waay maa ngi leen dégg ñu ngi naan Aliou Sall di kos di tag di ko <laughs> eh, non mais c'est euh, grave en tout cas daal pour mm-hmm. te dire que ñenn ñi moom façon triant bu nekk dinañ ko def pour am xaalis du sacrifice du dara ay escroc lañ ñuy escroquer les autres rek waaw man de dama nii même bu fekkee am na ñu koy def xam naa làqu nañ di ko def ñëwuñu ci TikTok bi di ko def xëy nañu ñi ci TikTok bi dañuy dañuy euh, cinéma mais man damay damay wax ni business bi Sa Ndiogou wax benn mënuñu ko ci dindi ñaar euh, nañu gëmaat yàlla parce que yàlla aussi boo ko gëmee ba pare da koy wóolu même bu fekkee ne du ci TikTok bi peut-être am na ñoo xam ne ànd nañoo ngëm-ngëm gi làqatu nañ seen nekk wala seen biir sax di ko def donc loolu man li ma ciy waxaat rek mooy nañ gëmaat yàlla te bu ñu gëmee yàlla pare nañ ko wóolu que tamit ayara tojotagul yi da ngay sonn rek yàlla suñu borom moo yor lépp kon nañ jël lépp rek bàyyi kook moom. di leen jox di daje suba ak jàmm allah ci kaddu coach. merci beaucoup ma jigéen Diop ñu jaajëfal ko ñu dem rek ci jël tampon école des jeunes mariés.